xam nga ku ñuy xool da ngay jaar fu leer. Mm-hmm. am na loo xam ne leçon la ci ñëpp di tiire pap kii fii kenn dofu fi bay tayle sa bopp. Mm-hmm. réew mi amatul sécurité. ku ne mm-hmm. na xam ki ngay waxal xam ki ngay jëflanteel. xam ñi ngay vocal tontu sax bu ko def audio. léegi da ngay tontu nit mu estati ko. waaw loolu pour lan la. nga envoyé nit reetaan mu estati ko. oustaz sama doomu ndey colkérisi bi yaa baax. dëgg kuy anniversaire ne la defal ma vidéo Pape vidéo anniversaire yi nañ ko bàyyi. mais dara nekk ci oustaz. mais Pape nit da lay nit da nga koy defal nit danaan la defalal sama sama rak sa soppe la. te xamuloo ko xamuloo ko nga defal ko vidéo. Mhm. moom amoon numéro bi mu koy estati xam nga lu mu ci bind. Mhm. oustaz Pa oustaz Modou Fall sama. doom sama xol yaa baax. <laughs> xolu koo xamul xamoo ko muy doon sama xol. Pape Cheikh Diallo sama doomu ndey ji yaa baax sa gil si gil nga ma Pape. station Texaco laa taxaw sama benn soppe may sol gasoil mu daw. ñëw ni ma damaa bëgg photo woog yow ma photo woog moom. départ àggaguma technopole mu estati photo bi bind ci Oustaz Modou Fall moo ma seet si woon tey yaa baax. am ku ko capturé yónnee ma ko ne ma pourtant ba ngay seeti kii de mënoon nga ma cee boole ma ne ko kan. <laughs> Fall da xew nag <laughs> Fall da xew de man mii fañ dama lay estati pour am tuuti buzz. <laughs> Pape nit ñi dañuy toog sax. Hmm. di la woo di la def main libre. ah mais kooku sama xarit la Modou moo bàyyil ma Modou Fall yow moo kooku dem moo laay la. Ah, mais mais mais ah, Oustaz na ay dossiers am xaaral mais Oustaz réew mi wóoratul de. barki alquranul karim ku moytuwul ñu daaneel la <laughs> barki Seydouna Muhammad. maanaam à tout moment mën nañ la cee boole. alaaji Pape boo demee bay wut coro. Hmm. fas yéene koo takk. Hmm. bu ma nee doon muuma moo gën. muuma. waaw looy wax ak moom boo ko nee je t'aime aussi nu mu la koy waxee <laughs> ay oustaz man man dama bëgg jigéen buy wax. réew mi daal léegi li fi wóor mooy muuma takk muuma muuma wala nigérien wala camerounais bu amul Facebook wala bàyyi même bu amee Facebook Pape. dama lay bàyyi dama laa bëgg bàyyi bu amee ay sénégalais it <laughs> ko. dama lay bàyyi. sénégalais la da Pape sénégalais moom xoolal. salaamaaleykum. rek doy na ci. man li sama maam sama maam day ree ba mu yàgg ne la yàlla na nga dee waaye yowit oustaz yàlla na nga dee <laughs> eh, ku yab rek moytu booy takk takkal muuma wala nga takk ba bafana bafana parce que réew mi léegi personne n'est en sécurité en fait pap pap ñun ñi ñun ñi siiw nit ñi xam ñu uh-huh. nañ bàyyi vidéo anniversaire uh-huh. nañ bàyyi seeti nit ci appartement om uh-huh. xamoo lum fa placé caméra yi daa bari waaw mais xanaa am nga droit dem seeti nag sa nit seeti bay danger bi carte mémoire yi nu génnee léegi nga xam ne ci làmp bi lañ koy monter boo duggee ca accolade ba lay commencer film ngay toog muy film ngay toog muy film ba ci bi ngay wékk garambu bi da koy film bàyyi ci xel lépp lay jël seeti moo wóorul looy seeti koo fi seeti mu yóbbu la koy waxal téléphone mu def la may libre koy waxal mu lay enregistré koo bindanteel message mu capturé li nga doon wax dugal ko oustaz tey moom kontaan naa ci temps bi nga ma jox loo wax ak moom. et puis et dama gis ni léegi nit ñi dañuy prévoir ay. maanaam da ngay xaritoog nit mu ngi wut lu mu la xamal pour bu ëllëgee bu ngeen xuloowee ñoom dañuy prévoir dañuy prévoir weerante. benn mag mu baax daf daan wax ni loo moytu ki la bañ moytu lu ni toll sa xarit. ki la gën a jege. laa ilaaha illallah Pape boo gisee geeru xarit metti mooy da ngeen a séq lu nekk. jabar yi jëkkër yi xarit yi ah yàlla baax na. Pape xarit dafa xewi. Mhm. doomu nday kolkerisé foo dee ma dee fa ay fen la gëmuñu ko. Mhm. pap jàmbur bu la yàqee du la metti mais sa xarit daa am ay preuve ande ay maire rek laay àndal ay Absa Dieng <laughs> ay Henriette ay maire yoo xamante ni elles n'ont plus <laughs> sama groupe maire rek laa am ay maire yoo xam ni daara safu ñoom laa jël rek def ay doomi ndey xam nga olof ay wax ni diiroo ak koo yemal dëgg la waaye ànd àndal ak koo xam ne li bañ. Mhm. ngay bañ mooy koo tollool koo tollool ngor. ko tollool ngor Pape mhm. il fallait nit di xam ñi muy waxal. Mhm, mhm. gis nga ku dul ruus. amul gàcca doo séq ak moom. déedéet te am na ñoo xam ne dara safu boo jotee ak moom. lay tooy ca yow lay jóge parce que dawul gàcca nañu moytu xaritoo yi. luy wéet di ko def ci safaan wéetal def ko bu la seytaane mënee ba nga def ko boo paree jéggalul yàlla. bàkkaar yëpp yàllaa koy baale. lu la rëcc baalul yàlla nit matul. yàlla bëri na yërmande mais Pape xarit. def dara du toog ak sa xarit def naa nangam def naa nangam def naa nangam loolu moo xewi nit day am sutura garder ay vie privée jardin secret jardin secret mm. mais léegi Sénégal gii moom li ñu gën a faible nag mooy ko siiw attanuñ ko am na ñoo xam ne moom oustaz may jël attanuñ ko may génn ak oustaz mm. attanuñ ko yéen tam da ngeen di jël rek dégg naa kenn jëlu fi ñoom ñooy ñuy jël mais yaa ngi jël nag oustaz nit nga non nit nga xale nga yaa ngi jël waxal yow xam nga ni man su may jël ne la maa ngi jël xam nga ni man ragaluma kaa mais mais yaa ngi jël man dawuma dara man man xoolal man dañ maa kaccat ci yooyu parce que xam nañ ni man mhm. suñu borom damaa dimbali ba ragaluma mhm. xam nga ku dëkk yëmbal man ta tàppet dëgg foo dëkk yëmbal mhm. foo yeewoo yëmbal da ngaa ragal dañ lay génnee koñ bi dootoo dootoo fa dëkk ñun ñun bu ñuy dee nañu gaynde rey ragaluñu loolu mhm. mais dama laa bëgg a xamal ni la ku ñuy xool di la déglu ngay jàngale da ngay dugg ci lu leer mhm. parce que dafa am ñu la jonkanu mhm. ku ñuy xaar da ngay moytu ñun li ñuy xaar ci réew mi dangaa xam nu mu tollu pap dëgg na de ñu nu bokkal métier di waaraate comme ñoom am na ci am na ci ñoo xam ni bëgguñu nu parce que ñoo nu raw fuuf ci téere yi waaye ñoo leen ëpp ay fans dëgg la te loolu mën na déranger. day déranger diw maa ko raw maa ko ëpp xam-xam. mi ngi toj dëkk bi ñëpp ko bëgg mi ngi am xaalis mi ngi dawal ak oto. mi ngi am ci mbasin yu rafet yi nit ñi bëgg nañ ko te man maa ko raw foofu te aw ma lim am mais da weddi yàlla. Mhm. daf lay dugal ci soxor. Mhm. am na ñu dul weddil nit am na ñoo xam ne loo wax ci gor ñu dëggal ñi war a weddi war laa soutenir dimbali la duñu ko def Sénégal ku fi am sa problème yaa koy wéete nanu moytu xarit amatul c'est faux ku la ni sa xarit la yaay sama doomu ndey kulkiri si xamal fi ngay yem ak moom xarit boo xam ne bis bu ngeen xuloo yi pap xuloo dafa metti xuloo bu amee lu gën a metti nit da nga ko koy def fu mu gën a mettee fa ngay tibbee loo ko xamal génnee ko loo ko xamal waxal ko ko xuloo bu ko nit nit du xulu xaritam. Mm-hmm. sa xarit boo amee lu la naqari ci moom da ngay toog wax ko ko. Mm-hmm. bu amee lu ko naqari ci yow mu wax la ko mu jeex. mu ci seen biir mais nit du xuloo xaritam. Mm-hmm. arrière passé ñëpp a ko am. te ku suturaal nit suñu borom suturaal la jàngee naa ko ci yéen borom xam-xam. xam nga lu yonent bi waxoon. Mm, bu daan toog ak xale yi. xale yi ko bëggoon daan daan ko fréquenté. daf daan wax saxaaba yi bu kenn waxtaanee démb nag. ndax am na ku fi maamam def lu ñaaw def ma ko bu ngeen ko waxee ci kanamu xale yi dañuy rus dañ naan man ni ma bëggee yonent bi ndekete sama maam def na ko jëf ju ñaaw ji mu ne bu kenn waxtaanee démb waxaat ni uzkuru mahasina mawtaakum su nit faatoo lu mu ñaaw le nëbbu leen ko yàlla bari na yërmande bu nekkul woon kuy baale ay bàkkaar kenn du ko tuddee xafuuru jéggalaa kon bu mag bi moom dafa mën a jéggale mën a baale lu nit taq taq boo ko joxee sa bopp ni ko yàlla baal mu baal la bari na yërmande moo tax sama sëriñ Seydil Hadji Malick wax ni mhm. law kaana baabuka laa yatihi zu isamin fama duita gafuran kulla awzaarin mhm. yàlla mooy jéggale bàkkaar yi mhm. nanu delloo si waat xel yi di rafetal xalaat yi di jéggale di suturaalante di baalonte ak toppante beeg xuloo bi lépp fii lay yem kenn xamul sa ëllëg kuy taxaw yàlla rek a xam kii mujj sa bàmmeel di la sottil ndox di la ñaanal xamoo kan la kii jël ay chaise sa jouru dëj di la ragaleel xamoo kan la mm-hmm. kii ñëw bu ñuy baas sa jouru dëj mu jàpp ci baas bi xamoo kan la mm-hmm. kiy dimbali sa mbokk ëllëg bu dajeeg moom xamoo kan la mhm. am na koo xam ne sa yaay feebar na tëdd hôpital médecin ba nga fa fekk xam na sa yaay xam na ni yaay diw mu dimbali ko mhm. ku xamul sa ëllëg fu muy mujj da ngay moytu voilà tey góorgóorlu donc loolu mooy topp ak dégg ñu euh, dem ci ay questions yu ngeen di yónnee ak hashtag bi di midi plus wala pape à midi euh, ci compte yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi ak fu ngeen mënti nekk ñu ngi leen di euh, ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal première télé digitale fii ci Sénégal Sénégal Midi Plus euh, premier magasin de la mi-journée euh, laaj bu njëkk bi euh, ci ndimbalu El Hadj Diouf ñu tegal ko Oustaz du Fall Oustaz quels sont les devoirs d'un époux envers sa femme mu ngi laaj naan lan moo war góor ci soxnaam ci islam. a ah, lii kay mooy li ñu doon waxtaane sànq alaaji pap mhm. góor daal li ko war ci soxnaam mooy dëkkal dëkkoo yor yërëm. dëkkoo. dëkkal dëkkal. yor yërëm yërëm ok. jigéen boo ko toppee ci ay waxam. Mhm. du ngeen def trois ans. dëkk la. jigéen ngay takk defal ko lu nekk mu xuloog yow benn bëccëg ne la yaa ma musuma musoo maa defal lu baax yaa tax ma torox boo ko toppee ci ay waxam da nga koy bàyyi. Mhm. da ngay xam ni kenn la jox xelam matul. Mm, te bu seen xol méttee lu ne la ñuy wax. lu ne la ñuy wax te lu ñu mm. wax nag mën nañ cee génnaat. dëgg la ci saa si. dañuy mer léegi ne la may ma baat mm. nga topp sa fase mu mm-hmm. tax yonent bi nee na nit su meree day toog bu ko fekkee mu taxaw day toog mm-hmm. su ko mënee na jàpp ba sell julli ñaari ràkk mm-hmm. bu dañul mu génn boo bañee wax looy rëccu wala wax lu fiy des da ngay moytu kàddu kaddu moo gën a garaaw jëm nit paak nit dafay téye maanaam dafay dafay ànd ak dal as sakina li ñu tuddee as sakina mooy dal bu sa xol tàngee nga jël sa kurus def mille cent 1111 laa ilaha illallah. 1111 ba pare di ko teeylu nag xolal. laa ilaha illallah di ko tibbee ci sa biir xol dafay dalal nit. ndax yàlla nee na ci tudd yàlla rek la ngeen ngeen di amee dal. te bañ a def laay layla laay layla laay layla laay layla laay layla laay ilaha illallah. ko defee noonu. oustaz waxal yow it man damay jàng ñii seetaan di jàngale bu ma amee lu ma jaaxal dama la koy wax. kenn du wax lay lay la laa. d'accord damaa dégg ñu taasu ko itam. laa ilaha. illallah. illallah. moo gën lay lay la laa. lay lay la laa. xam la laa lay lay la laa lay lay la laa. xam nga boobu. xam nga astaghfirullah. Mhm. am ñu naan ah, waaw. Ah. loolu boo ci defee téeméer yàlla du la baal. lu ñu war a wax. astëg. astëg. voilà mag ñi bu ñu la ko daan jàngal dañ la naan da ngay mel ni ku naan as. diw as na ci ndox mi as. as. ak nit ku tëx. d'accord astëg. Ah. xoolal astëg. firullah. déedéet astëg xanaa firullah bi fi lay ñëwee. <laughs> riim dafa war a mat astëg. firullah. c'est tellement pédagogique ce que je fais parce que dafay permettre nit ki xam naka la war a prononcer baat bi. mag ñi noonu lañ daan jàngalee te prononciation dafa am solo. mag ñi noonu lañ daan jàngalee dañ lay wax ay kàddu yoo xam ni nit ki da koy xam ñu ne la boole ko as kuy as ci ndox mi. mel ni kuy as ci ndox mi. ak nit ku tëx. tëx nga boole ko muy as. tëx tëx. firul ma ok. yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal ma. Mhm. jéggal ma yow yàlla. Mhm. mu ne kon ci tudd yàlla ci la xol di dalee ala bi zikrillahi ma innul xuluub kon pap àqu jigéen ci jëkkëram jëkkëram da ko war a yor soutenir ko am na ñu takk jabar ñoo xam ne duñ ko defal dara ba chaque jour seen jabar yëkkati seen téléphone di woo di woo seeni i càmmiñ di leen ñaan xam nga lu gën a nekk gàcc yor sa jabar doo ko defal muy woo ay càmmiñam di leen ñaan xale yi amuñu mburu xale yi amuñu luñ lekk may ma jënd nàngam loolu day sàggi sag pap ku yor sa soxna balaa ngaa defal kenn defal ko ba bu génnee ñu xam ne kii como yoru ko mm-hmm. nit day wane boppam ci jabaram sa sagub góor la da nga koy jëndal ay jesner muy sañse mm-hmm. nga koy laalal ay iphone muy yor ci mm-hmm. ay digg nawleem di ko defal yu neex kay di sinab di ko génnee trois bët yi di génn dëgg la ñu xam ne kii kat ki ko yor yorul como dëgg la mais yor sa jabar jàppee ko mbalit doo ko defal dara fu mu soll robe deux robe deux mille yi mi nga toj dëkk bi la koo ci gis ci lay am siis yu baax di foto ko paase doo ko jëndal li ngay sol foo génn ñu ne da ngaa a sañse sa jabar bu génnee ñu ne ah xool ko miin na ndakaaroom gi mm-hmm. di sañse bàyyi sa jabar mm-hmm. mbasin bu rafet nga solal sa bopp parfum classe bu baax nga jënd mm. mais sa jabar moom du sañse mm. du am lu baax toppatoo woo ko mm-hmm. nit danga koy sagal ba bu demee këri mbokkam ñu xam ne kii nag fàttewul jabaram mm-hmm. mais yaa baax ci mbedd mi ba pare bon ci biir kër gi doo kaf doo ree mm-hmm. mbaa yëg nga ni am na góor ñoo xam ne agsi nañ ci kër gi bés nañ sone bi mooy changé nañ kanam fuñ ñu mm. ani bi <laughs> facture bi dafa ñëw <laughs> dañu xale yi dañoo tëdd ah bon <laughs> jàppal ma TFM ñàngal <laughs> jàppal ma TFM mën na maa rey nii à tout moment mën naa dee nii. voilà changé <laughs> ñàngal ci biir kër gi. c'est vrai alors que bu ñu génnee ci bi ci dañu mel ni ay muus. départ nañ ci seen oto. oo seen gël yi bee bee ci loo ne e eh, bee non non bee yow tam gisuma say appel xam rek mu toogee maram du bëgg di wax quoi bee xaaral bee e eh, bee non non non <laughs> ah, bee yow reetaan <laughs> yow mii def nga <laughs> pap dama pap damaa xam li xew ci réew def kat nga pap xoolal am na ñoo xam ne ay gaynde lañ ci seen biir kër mm-hmm. nekk nag xaru yar. ay muus ci biti kaf reetaan ak jigéen ñi baax xoolal. Mhm. taf daf ñu envoyé la nag xaalis. Mhm. waaye bu nu nekkee ci kër gi ak seeni soxna du ñu kaf du ñu reetaan am na ñu seen jabar ñemewul a kaf ak ñoom. Mm. te yonent bi da daan boot Sayyidatuna Xadiija di daw ak moom. ndeysaan dee leen boot seen soxna yi. ci boo ko attanee am na ñu nekkut a boot de. kalaasu Ngoone Njaay géwél gi takk ko war koo boot. donc jaral na maa bàkkaar waaye du ma dugg ci ngóone ay. boot mu yàlla tere. biisu moom mooy boot jëkkër ji moom kenn attanu ko ñu dem ci beneen question ak hashtag bii di midi plus euh, laaj bi ci topp mu ngi jógee ba tey ci internautes yi ñu euh, jébbal ko Oustaz Modou naa fi la farata la wala sunna alaaji Pape naafila sunna la nekkul farata farata mooy julli yi nga xamante ni bi yàlla daf ko cité mu nekk ay julli juróom mm. mel ni julli suba julli tisbaar julli tàkkusaan julli timis nga xam ne dafa am heure ak gée mhm. yooyu ñooy julli farata mhm. la yi nga ciy teg nag ñaari ràkk yi ngay njëkk a def avant julli suba mhm. naafila la la julli yi nga ciy teg avant julli farata yi maanaam wis yooyu yi nga ciy teg yépp loolu mooy la loolu nag sunna la waaye am na ci la yoo xam ne dafa am doole lu mel ni ñaari rakkay fajar yi ngay julli avant ngay julli suba loolu boobu du farata de. déedéet sunna la. bi ngay jiital. bi ngay jiital sunna fara euh, sunna la. na la ok du farata. maanaam na mooy mën na ñàkk. mooy boo xam ne boo ko deful it kenn du la ci bindal bàkkaar. mais def koo gën. mais def ko moo gën parce que daf lay dolli yiw. mu mm-hmm. ngi mel ni argent de poche rek loo ci yor doyul. Mm-hmm. naafi la am na ci yoo xam dafa am doole lu ci mel ni ñaari rakkay fajar. Mm-hmm. wa min alleyli fa tahajjat bihi naafilatan laka asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda mm-hmm. yàlla dafa wax ni kii mm-hmm. la mën na am ay garaat yu kawe ci kanamu yàlla mm-hmm. te itam wax na ni ñaari ay fajar day nekk ay leer nekk ay yiw ëllëg ci kanamu yàlla rakaataani fajri xayru mi addunia mais heure bu jafee jullee ngoogu moom fajar est-ce que xam nga ni fajar gu nekk malaaka day ñëw ba dernier asamaan di yuuxu chaque six heures du matin téere yi nee nanu chaque six heures du matin dana am ku nekk ci asamaan bi mujj naan ana kuy am soxla jug ñaan ko yàlla yàlla fajal la ko mm-hmm. di ko xaacu rek te kenn du jug mm-hmm. kii mm-hmm. nodd ca jàkka ja ni asalaatu mi min naw mi nga xëccaat sa mbàjj seytaane da lay topp parce que heure boobu day la mësu ci yow pap dëgg la de yeewu songu salle bi sangu jàpp julli heure boobu dagg say nelaw jox yàlla lim moom ni ko yaama ni naa jug heure bii jug naa yàlla da koy fay par force amul werante macha allah déggoo ñu ni ñaari rakkay fajar moo gën àdduna ak li ci biiram mhm. yonent bi daf daan naafila ba ay tànkam di neewi am na góor ñoo xam ne dañuy tëdd seen jabar seen jabar jug bàyyi leen ci kaw lal bi imagineel yor sa jabar yor say njaboot war leen a jiite julli kilifa day lal sijaada ci ay këram taxaw ca kanam njaboot gi wër ko mu jiite leen julli mhm. wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha mhm. yàlla nee na kilifa day jiite ay njabootam mais tëdd sa jabar mu fajar di julli nga naan eh, je dérange quoi mais diine sax waxul ngay <laughs> dérange. François pourtant dëgg la de bay sa jëkkër quoi. nga war a julli. allez ñu jàll ci beneen question et puis à propos julli bi euh, am na euh, suma yaay bu ma laaj keroog ni dañu ne safa ak witr boo naafilaa ba def ko ba noppi tëdd rek moo ci des. loolu obligation la wala. parce que parce que dañu ni ñaari dañu ni ñaari rakk xam nga safa ak witr rakk bu njëkk bi sabbi xis ma ngay tari bi ci tes nga tari xul yaa mais mais mun nga ko def par exemple man samedi. non mooy tëj samedi dama war a dama war a baali war a dem waali sekk mën naa safa ba pare ay deux heures du matin ma génn. pap dem waali sekk daa. dara nekku ci jamono rek jamono rek bu ma ko weesoo bàyyi ko mais vogue dimanche moom munu ma ko wute. dem waali sekk daa xaraam. dara nekku ci. dem arena daa xaraam. arena ku fay tëgg Youssou rek fu mu mës tëgg yow boo bàyyiwul Youssou nañ la mës a dàq ci télé bi <laughs> mais safa ak witre bi moom boo ko jullee ba noppi rek tëjël. safa ak witre dañu ni mooy enveloppe bi collecteur julli bi. mais du obligation. sunna la na la mais mais mais boo jullee farata yi ba pare. Mhm. enveloppe bi nga koy def pour yàlla mën koo récupérer. Mhm. mooy safa ak witre. donc ñàkk koo def wóorul. wóorul dafa baax julli daf ko war di julli dafa am doole. Mhm. sabbih isma rabbikal a'la ngay tari. Mhm. tari qul yaa ayyuhal kaafiruun. pare mhm. tari lixlaas falax ak naas. donc c'est obligatoire. pour jullit bi di ko def. d'accord c'est obligatoire chafa euh, ak witr dafa obligatoire man mii sax dama doon laam-laamee euh, obligatoire na wala obligatoire. du julli farata maanaam du farata. Mhm. boo xam ni dañoo wax ni jullit bi far force daf koo war a def. mais bu ko defee moo gën. très bien. c'est très clair ñu jàll ci beneen question ci ndimbalu El Hadj Vieux Diouf ñu tàggatoo ba di leen bàyyeeg euh, aljuma euh, ci euh, xutba yeeg yu am solo yu leen di jagleel ci télévision Futurs Médias oustaz lu yàlla wax ci lekk xaalisu miraas maanaam éritage yàlla nee na inna allazina yakuluuna amwaalal yataama zulman innama yakuluuna fi butunihim naaran wa sa yaslawna saira loolu lu muy tekki. yàlla nee na képp kuy lekk xaalisu héritage. Mhm. xale yi am alal ci seen baay. Mhm. nga di ko lekk te joxoo leen seen wàll. di lekk alal joo moomul alalu miiraas nga di ko lekk. yàlla nee na pap yaa ngi mel ni kuy lekk safara nga yëg ko ak nga ñàkk koo yëg. maanaam par la force boo ko lekkee mën na reesee fii waaye di nga ko goqi àllaaxira. àllaaxira nee na safara xanaa déggoo aaya fi mu daanoo. wasa yaslaw na saira nee na safara nga koy reesali jee. réew mi pap am na ñoo xam ni miiraasatuñ nit kuy dund bàyyi fi alal yoonu jàmbur nekku ca ku ku bàyyi ji jur te nga judd ci buumu sëy buum maanaam judd ci sëy bu valable ki judduwul ci buum moom bokkul ci miiraas bi ku judduwul ci buumu sëy bokkoo ci miiraas kenn di ko xala kenn du ko négocier diine yàlla ji amul négocier yenn saa yi nga dégg ku ne ah judduwul ci buum de waaye ah kon nañ ko jox 40 millions yi rek na yaa ngi yaa ngi yaa ngi teggi àtte yàlla de ku judduwul ci buum waaye yow mën ngaa lege luy lege mooy ni judduwul ci sëy waaye sama doom la maa ko bàyyi lii avant ngay dund avant ngay faatu waaw ci ci dund avant ngay faatu mhm. te maye bi it ci charia dafa am lim am na fooy toll ci feebar kenn dootul accepter sa maye. mais genre xale boo adopté parce que adopté xew na. maa ngi ñëw pap am na ñoo xam ne dañuy feebar tëdd ci hôpital bi nga xam ni kii dans un mois mu faatu. Mhm. ñu profité bëgg nga may sa kër ga nekk yaraax diw. Mhm. sa oto sàngam may ko sa doom diw. Mhm. bu fekkee da noboon sa ñaareel nob yu ëpp nag. mu sax ci sa nopp yi kër gi nekk almadi da xam naa ni moom musaa nga koy jox rek wala Daouda. Ah, waaw jox ko Modou. mu la may ko ko. nga xañ ko ay doomi aawo bi wala mu may ko doomu aawo bi bàyyi doomu ñaareeli yi pap dafa sensible yàlla nee na ki doon dund alal ji mu am nañ ko séddale teg ko ci dëgg yenn saa yi nga gis koo xam ni mooy xam mooy xam ki faatu ñaata compte la am lan ak lan a nekk ci alalam kooku mooy jiite lekk gi mm-hmm. mooy ñëw di wane ni ki dem sama xarit la mm-hmm. naan ñàkkoo leen baay ak bilaay di ngeen xam ni seen baay demul maa fi nekk ak mhm. naan jigéen ñi na ngeen xam ni seen jëkkër demul maa fi ne dara day lewal rek mhm. xool ka ca gën a mool mu tebbi ko lànk mhm. nanu bàyyi alalu miiraas yi ñuy lekk nañuy teg miiras mi ci yoon. wala nit faatu balaa kenn ñëw nga daw dugg ci néeg bi jël daanaka ay ooram ak ay. mayoon na ma nangam moom. mayoon na ma nangam te mayu la ko. loolu du rees. baaxul ba pare léegi miirasatuñ dañuy séddale séddale ak miiras nag bokkul. bu ñu la dee miiras dañuy laaj ñaata soxna nga am. ñu ne 4 4 yooyu la ñuy miiras boo amee 5 cinquième bi bokkut. boo amee 6 jabar sixième bi bokkul. boo amee 7 jabar septième bi bokkul. ñi yàlla wax ni ñooy donn ci miiras mooy 4 femmes yi ñoo dagan. doom yi judd ci yoon ñoo dagan ñoo ñooy lekk ci miiras mi. imam bii miiras li muy àtte day xam ni day njëgënaayoo loxo ndeyjooram da koy àtte ci dëgg. taawu kër gi it xam ni moom itam bu lekkee lum mu warta lekk dana ko layoog yàlla mhm. maa jege woon sam papa maa yoroon ay bienam man la sam papa daan dénk mhm. tax nga sukkandiku ci alal ji xañ say rakk yaa ngi lekk safara yëg nga ak nga ñàkk yëg waa doom ji juddu ci takk suuf nag dugguma ci benn cas ay question rek yu may laajte nii gisoo tey damaa sedd tey dugg dugguma ak yow ci benn gàmm xam naa Buuba Nduur gëm la yore ak fëyam di xaar ma déraper rek mu jox ma demande explication moo tax tey damaa silvisé réglé bu ngeen seetloo damaa réglé rek dama bëgg a xam ndax doom ju juddu ci takk suuf dina bokk ci miraas bi. xam nga Pape takk suuf dafa am lu ci nekk. Mhm. wax naa ko démb xaw ma bërki démb ci interview bi ma leen den def ma ne leen takk suuf. Mhm. fi muy daganee ci lislaam day bis bu nu ko leeralee ci réew mi ña sukkandiku pour def ko dana bari. Mhm. parce que fi muy daganee jullit pour mu def ko. ñu ci bari cas boobu daf leen a mais am na ñoo xam ne fi ñu bëgg a sukkandiku takk suuf mën ko dagan ci ñoom. mooy man kat damay damaa gis ndaw sii. bëgg naa mooy ak moom yàlla bëgg naa sëy ak moom te bëgguma sëy ak moom ci mooy yàlla. ma ne naa ko takk takk goo xamante ni bii teguwul ci dëgg. muy lépp ay tappale la. benn ñi nga représenté ne ñooy say kilifa duñ say kilifa da leen a luye. muy benn. ñaareel ba mooy ndaw si ci boppam waxul ay kilifaam ni takk nañ ko loolu fu muy dagane. waaw mais dañuy bañ a bàkkaar yow it moo tax. mais Pape loolu mënta dagan lu ñuy nëbb sa papa yow yëgu ko xam nga bu dee jànq nga dèjà kenn amul autorisation maye la ci charia te sa papa d'accordul hmm. ku mës ta sëy ku ko maye te baayam d'accordul sëy bi valable mais ku sëy ba pare mën na maye boppam mën na maye boppam boobu tamit sew sew la xam nga luy na maye boppam hmm. mooy kenn dootu ko tànnal jëkkër mooy tànnal boppam mooy tànnal boppam d'accord mais du du mën nga maye sa bopp bi rek da ngay jékki-jékki rek ñëw ni yaay takk nañ ma dem papa takk loolu fan laa am dëgg la de ñu bëri nag dañoo nooyal may mën nga maye boppam bi naan man kay je suis divorcé fi mu ne nii su ma gisee ku baax ku yiw ku waxi dof ku jullite Bot Fall dama lay bàyyi ñu dem ci beneen question très rapidement euh, kii mu ngi laaj naan est-ce qu'une femme peut épouser un homme moins âgé qu'elle maanaam ndax jigéen mën naa sëy ak koo xam ni moom ndaw si moo ko mag. daal xam nga yonent bi ñaata at la ko Khadija magee. 15 ans. 15 ans fukki at ak juróom. fukki at ak juróom la Sayyidatuna Khadija magee yonent bi. kon mën nga gis ku la mag wala ku la mën a jur nga bëgg ko. mais ngeen sëy. sëy amul âge. ok sëy amul âge c'est très clair ah. sëy amul âge. Euh, naka la ko français bi waxee phrase bi. L'âge ne compte pas, c'est l'amour qui compte. Oui, voilà, c'est l'amour moi ce qui compte. C'est vrai aussi hein. hein? Ouais, ouais. L'âge ne compte pas. Et quand il y a amour euh, voilà, c'est l'amour qui compte. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. <laughs> donc bu la jigéen bi magee ngeen bëggante amul benn ngaañ ñi bakkaar ku la magee quinze ans mën ngaa sëy ak moom bu ko ragal gis nga koo bëgg yaa ko mag yow ndaw si jikkoom doy na la bu ci say kilifa dàkkooree nañ leen maye bul daw ay débat ak ay wax mhm. parce que réew mi xam nga boo magee boo takkee ku la mag buñ xëyee yow la ñuy revue de presse mhm. waaye yow yëg nga ne Oustaz Modou Fall moroomu ndayam la takk mhm. te du saa si mairie dañ leen di bëgg ñëpp ñu <laughs> mu ngoog saa dama seet leen ci kër ay ay kër meer. mais dara nekk ci c'est juste l'amour qui compte donc bu dee euh, gis nga jigéen bëgg ko bu la magee sax. mën nga koo takk seeg moom dagan na. ñu dem ci beneen question bi lu yàlla wax ci yàq biir oustaz que dit l'islam sur l'avortement clandestin yàq biir. rey nit la. ah bon. bakkan buy dund nga rey ko te tey ko. Mm-hmm. yàq biir rey yàq biir rey bakkan la mm-hmm. looy daw gàcca mm-hmm. gàcca ngay daw ba jëlee ca bàkkaar mm-hmm. ñu àtte la bàkkaaru ku rey nit alaaji pap te xam nga lu yàlla wax wa man xatala muminan mutaamidan fa jazauhu jahannam yàlla nee na ku rey bakkan te tey ko safara nga jëm sans intermédiaire léegi da ëmb ñu ne la am nga un mois deux mois nga ni naan naan pilil yàq ko parce sama copain bi daa rëccile. Mhm. ëmb am ci. Mhm. accident de travail la yu tam <laughs> ça arrive ah. ça peut du ñu ay wàlliw du ñu ay robot du ñu ay xutbo des fois mën nga def dara. mais da ngaa war ta jege ba ëmb di am. accident. pap da ngaa jege ba ëmb di am. seytaane bu la mënee <laughs> nga tuur ndab li <laughs> seytaane itam da mën yenn saay ala kulli yàlla. est-ce que xam nga ni Pape. Mm-hmm. naan ay pilil. Mm-hmm. pilil lendemain. boo mm-hmm. ko xamee. <laughs> faat nit la <laughs> dama lay laaj rek pilil du laan lendemain moom après bu émission bi jeexee di nga ma wax foo ko xamee. mais àggalil ci li ngay jàngale ndax ñu ngi waaj a tàggoo deux heures jot na te dañoo war a julli ju jumaa pilule du lendemain sas foo ko xamee loolu dinaa ko régler ci kanam parce que yéen it lu ñu leen waxal yéen a pilule du lendemain ci kuy dox ci naasiril xaq bil xaq jar na ay question mais répondre ci lii ngay jàngale très rapidement ndax euh, euh, avortement clandestin dagan na yàq biir pap yàq biir daganul doom ji yàq xamoo lan la mën a doon ëllëg mm-hmm. bakkaar bi nga ci am yàllaa koy bind. Mhm. bañ gàcce ba tax nga faat bakkan jaru ko bàyyi ko mu dund. seytaane mën na mën ku nekk ba mu juum ku yàkkagul waroo reetaan ku xëmle parce que en chaque moment mën nga xëmle da nga wax bi mhm. en chaque moment mën nga xëmle kon nag jarul yàq bàyyi ko mu dund. waa mais mais mais am na période boo xamante ni nag oustaz. ñooy waxante am na diggante bi euh, euh, doom bi sosu am na dure boo xamante ni euh, liir bi ci biir bi du amagum ruux. yow kon comprendre ah mais man damay jàngaa. doomu aadama wala ustaas yi may jàngal xam amande ah, de asana may jàngal. boo demee ustaas xamul dara man lu ma wax rek asana ma ko jàngal. bu ci gis erreur rek xam leen ne erreur Oustaz Assane la parce que defe naa bu bu ñuy sos doom bu mbir yi duggee am nga 60 jours yoo xamante ni ruux du amagum. nit mu ngi sosoo ci toqantalu maniyu yaxruju min bayni sulbi wa taraib dañu wax ni maniyu boobu bu nekkee 40 jour lay formé wu. waaw gannaaw 40 jours mu formé wu waat noonu la ko yàlla di jàppoo ba temps bi ngay ëmb jeex. mais avant quarante jours ruux amul. lépp luy tax nga dindi li nga ëmb yàq ëmb la. oustaz mais 60 jours ruur du am. waay Pape xanaa dégg góoba. waaw oh, man téemaa woo Ahmed Khalifa Niass bokk pour oustaz man maa dégg avant 60 jours ruur amul faal. bu jaxasoo amul. waaw ah. yaakaar ëmb du am. waaye bu yoon jeexul waa ko si du saas man fi mu ne ay ay plan B ay jurisprudence lay wut parce que ñun ay nit rekk lañu. billaahi li dalul sa xel ba tax nga wut pilule de lendemain xam nga li nga def lan lañ bàyyi ci yow. bañ gàcce rek. <laughs> waa léegi damay laaj daw gàcca jële ci merum sunu borom. yàq ëmb. est-ce que xam nga ni planning familial bi ñuy def bu la ko médecin digalul pour sa wér-gu-yaram daa xaram. planning. waaw mais il faut espacer les naissances te bañ a mel ni Bijou Ndiaye. non. il y va de la santé de la femme de de de de de voilà plusieurs choses. planning familial xam nga fan lay dagalee ci charia. Hmm. médecin ni la sa doom kat boo dee amati doom. Hmm. sa butitu njurukaay wala sa yaram sensible na sensible boo xam ni sa bakkan mën na cee des. Hmm. maanaam l'islam moom lépp lu lay indil lor am na solution. waaye dara xewul. dara jotul. damay plané pourquoi. j'ai j'ai des bureaux j'ai commerce commerces avec Dubaï je vais à à Suisse. parce que j'ai avant yu mais <laughs> loolu yëfi def la. waa mais loolu tam calcul la oustaz. yenn saa yi nga dégg tubaab yu ñuul yu toog ci télé bi naan nañu sureel njur mi parce que enfant bi jub ji wax nañu ak ministre bi il fallait que ci bi àjjee ba ban ministre. ministre bi yàllaa ko fi jiitu bu leen ñu rey ak soreel njur yonent bi dañuy takkante leen. jur ay doom yu bari. yow nag tu te contredis ndax sànq nee nga booy takk da nga koy mën benn doom rek charge la. calculer ko espacer naissance mu munoo at bu jot nga am doom jamono neexul mel ni bi dramé chaque mois mu ngénte yooyu dafa metti aussi du ñëpp ko mën kuus seer na xale yi dañu mel ne ñu lekk kuus meew seer na ku ci ne bëgg nga dugal sa doom ci école bu baax les temps sont durs waaw sore leen njur yi dara nekku ci oustaz yow nag ku compliqué nga léegi yow naa wax gars yi boole la ci cas yi sax nga mën nga nga réglé vraiment naa def vidéo fan yi wax yi ngay def ci suuf bu ko defee ñu mën a am ñu mën a am calme yaa oustaz franchement amul yàlla hmm. wala taqtulu awlaadakum xasiyata imlaaqin loolu mooy bu leen ragal ñàkk ba bañ a am doom doom yu bari yi bu ñu leen jaaxal jur leen ñu ne ko yàlla lu tax mu ne parce que nahnu narzuqukum wa iyyahum man yàlla maa yor seen wërsëg. et puis seen jooy yu bëri yi ci biir kër gi waaw waaw oh, y'en a marre ci ñett yi ma yore laa yem. Pape yàlla nee na kuy judd ku ne indaale nga sa wërsëg. bu la sa bàyyi dundalul it danga nga dund. mais seen yuuxu yi ci biir kër gi rek loolu jar na espacé dañ <laughs> tàggoo <laughs> ñibbi jot na yaa oustaz balaa ñuy wax lu ëpp dégg nañu ñu ngi ndokkeel suñu soppee yëpp. question yu bëri na mais mënuñu laajte lépp euh, ñu ngi may laaj euh, mariage temporaire autant de question que je reçois mais xam naa dama koy lépp rek ba àjjuma bële di ñëw ñu ngi euh, ndokkeel bu baax Marie-Louise Ndiaye corps avocat bi Henriette Mouhamza Baye Khalifa ñu ngi koy ndokkeel di ko ziar Alice Newman Gana Messere Bigué mi ci kàngaarloo itam xoya ci dëkk bu ñu naan France càmmiñal Jamila ak Nafi Diagne moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax ajaature Touré fàttewuñu ko mami booy taalibe Serigne Fallou bi euh, yaayu Serigne Fallou ñu ngi koy ndokkeel euh, Adjot Faram Thiam yaayu ndey Ndeye Seynabou euh, mi jiite Cofamus moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax Awa mu taga Awa taga moom suma jabar la ñu ngi koy ziar tonton mag ak soxnaam ñu leen di ndokkeel bu baax bànneex Marème Ndiaye mu Mansour Ndiong Mansour Ndiong moom it ñu ngi koy ndokkeel As Ndiaye ak soxnaam Mam Khoudia mu faatu géwél Mam Khoudia mu ngi laaj ndax yaayam li muy def daggan da day woy faatu géwél walay jaxaseeg moom pour lim la nar a ñawal mu téye ko xam nga souvent ñoom ñuy jàngale dañuy jàngale rek mën nañu wax ay mbir nit ñi jël ko au second degré mere leen ci fekk ñoom it dañuy jàngale rek donc ñu ngi euh, ndokkeel bu baax As Ndiaye ak euh, soxnaam euh, maam Khoudia di nuyu tamit Mounas Ndiaye ça c'est ma petite cousine depuis Thiès Adja Kina Diouf yaat ma moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax sama maam sama chéri fàttewuñu ajot ab sa jeng Euh, ak njabootu Dieng David yëpp ñu ngi leen di euh, ziar di nuyu Corombaar Ndiaye ak borom këram xam naa ni fi mu ne dootam bi gën naa yokk elle reprendra peut-être très prochainement euh, Ndeye Ndaat Touré moom it mu ngi bég ci jotaay bi tey en tout cas Koulim Dioum merci d'être fidèle ci Midi Plus bi et on va revenir incha allah vendredi bële di ñëw yaa oustaz ban message ngay jox sénégalais yi laataa ñuy tàggatoo Adja Dior faal sama yaay la maamu Picola moom tamit ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax a baax a baax. Euh, <clears throat> Alaaji Pape message bi may. lancé rek. xale yi dañu bëri ay jooy man damay espacé naissance yi. wala ma annulé ko seen jooy bëri na ay yóbbu Magic Land yooyu mënatuma ko. Pape xam nga yonent bi nee na yow mal xiyaam damay tiitaru. Mhm. ñu ne ko looy tiitaroo mu ne yeneen yonent yi lay tiitaru ci ñoom. Mhm. ni leen man sama xeet danoo bari. Mhm. ñii ñëpp sama xeet lañ. nee na ci seen bariwaay boobu ci lay tiitaru. mais am na ñuy laaj pour nga tontu ma ci pilule du lendemain bi foo ko xamee. <laughs> yow naa topp say tànk fa nga jaar Italie jaar ko France il faut que ma dem fa enquête ci yow. ëpp naa def de Pape. <laughs> dinaa ko def de jéggal ma rek ëpp naa def. <laughs> jéggal ma ci barke Sëñ Fall. <laughs> waaw jeex na kon jéggal naa la. mais Pape. Euh. Euh, li may lancer rek mooy nañuy suturaalante. Mm-hmm. na ñuy na ñuy dawal yërmande. Mm-hmm. ci suñu biir. Mm-hmm. lu gor di waxal gor gu nekk <coughs> bàyyil xel buñ la ko waxaloon. gën a góorgóorlu nit ki yàlla bu ko xamee soxlaatul keneen di ko xam. amoo looy rendre compte kenn ku yàlla bind mhm. li am solo mooy nekk ci li nga nekk gëm sa bopp mhm. xam ni ni la yàlla def am na ñu bëgg a mel ni yow mhm. kon nag bu la yàlla teralee li la yàlla defal moom ngay muñee li la nit ñi di def mais grand yi sol ay culotte nag seen oom yi di feeñ grand yi ay grand ay grand yoo xamante ni seen ay doom ay grand lañu mais grand yooyu lan la yàlla wax ci ñoom ay culotte kilifa de di sol culotte moom c'est très clair <laughs> grand bi sër kilote du ma ko sax wax. kilifa moom pap kilifa nekk ci sa biir kër moom mu roosul kilote. ndax mais kilote dara nekku ci. kilote mën ta julli pap waaw mais di nga génn de temps en temps man par dimanche ay kilote laay sola fii dem see Fatou Kim fa bërëñ see des sous-vêtements te dama tatouage. loolu moom. bàyyi ba àjjuma nga dog ci tool. waaw allahumma amiin yaa ustaas ajaratu Marème Faye Sall. Mm. Euh, sama xarit bu baax boobu yàlla na yàlla may ko gudd fan. allahumma amiin allahumma amiin président ñaanal réew mi élection yi nga xam ne dimanche la. Mm-hmm. ku ci nekk gox ba nga nekk daal ka fa gën yàlla na ko fa yàlla teg. amiin amiin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. gërëm nag El Hadj Pape Modou Gueye héritage couture xam nga moo ma sañseel tey. Mm-hmm. héritage couture. moo mm-hmm. ma sañseel euh, yëkkati garambu bi. 10 mètres basin Jesner ñawal ma ko. jënd mbasin bi ñaw ko jox ma ko addiya Seydina Muhammad Modou Gueye dafa baax de Modou Gueye teraanga yooyu lay def noonu la mel ne ma tey daal maa lay sañsel fii ba fii ba Amérique waaw xam moo ci mën loolu nag teraanga la te ku la defal teraanga da nga koy wax waaye li doy waar mooy man xaritam moo ma abiyee kan la yow Modou Gueye man maam moo Modou Joxaane kon hasard amul. hasard amul Pape <laughs> ñooñu ni leen yàlla boolee kenn xamu ko. wallaahi yàlla na yàlla fay ko moom itam. allahumma ñaanal bu baax. Mm. ajaratu Adja Ummi Idrissa Gueye. Mm-hmm. suñu yaay ju baax jooju. Mm-hmm. Euh, soxna Momi Kebe. Mm-hmm. ñaanal ko moom itam soxna Jee Astu Sare ca Amérique. ñu koy ñaanal di ko gërëm. di ñaanal le ministre Moustapha Diop. moom itam yàlla jàppale ko. ñaanal suñu xarit suñu lépp suñu magu bopp Abdoul Aziz Aly Ndiaye gërëm ko. yàlla na yàlla barkeel ko. ñaanal réew mi yëpp El Hadj Pape. bu Serigne mm-hmm. Abdoul Aziz Al Amin yàgg waaye ñaanal Serigne Moustapha Sy bu mm-hmm. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mm-hmm. borom xam-xam bu mag boobu borom daairatul moustarchidine wal moustarchidaati ñaanal ko moom itam yal yàlla guddal fan allahumma amin yàlla sàmm ko te aar ko ñaanal réew mi yëpp alaaj pap ñaan yàlla daal réew mi yàlla fi yàlla def jàmm ajaaloo mu ngi laaj naan eh, di def émission ba yàq liggéeyu jàmbur lu ci yàlla wax xam naa ñun ñaar lay trak mais àdduna amul solo ji dañ ko tontu vendredi prochain. benn patron nee na ma. Mhm. danaa dàq sama employé yëpp ndax dama leen di liggéeyloo te vendredi koo ci gis mu ngi dëngal ordinateur am. di leen seetaan mel ni mi ngi liggéey te liggéeyul partout loolu alaaj Pape sant yàlla la <laughs> sant yàlla la boos ñi ngi koy sante yàlla di ñaanal suñu way waajur yi. Mhm. ndax lépp ñoom la. Mhm. ñoo ñu yóbbu ci daara ji fayal ñu ñu jàng. suñu yé jur yi nekk ci suñu kër bàyyi di fa sëy sëy bu rafet. ba yàlla defal ñu tey li mu ñu defal. am na xale bu laaj itam lèvre rose xam nga léegi dañuy kii xeesal seen tuñu lu ci ah, islam wax dara nekku ci nag rafetal la rek naa bàyyi ba àjjuma jeex <laughs> ñu ngi ñu ngi leen di fàttali itam euh, bi nga tuddee léegi euh, sa soppe yooyu sama xel dafa dem ci euh, Dame Diop Alaaji Dame Diop monsieur le ministre xam nga maamam sëñ Balla Coro ku ne xam ne sëñ Balla Coro Cheikhul Khadim ñoo bokk Mamoor Anta Sali ñu ngi jëm nag euh, ci euh, màggal gi le 29 la ñu koy amal. waaw ca Mbar. waaw ca Mbar màggalu sëñ Balla Coro bi euh, xam nga sëñ Balla Coro moom mooy frère cadet bu Serigne Touba moom nag xam nga mooy seefu Jurbel mhm. te ku ne Jurbel xel dem ci daam Diop moo tax ñuy fàttaliwaat Sénégalais yëpp ñu pare màggal gile nga xam ni le 29 la ñu koy amal ci dëkk bu ñu naan Mbar Cheikh Coro ak Serigne Balla Coro ñoo bokk ndey ak baay ku ne xam ne nii euh, ñoo bokk ak Serigne Touba sëñ Cheikh Thioro nag mooy maamu ministre Dame Diop donc màggaluk euh, sëñ Balla Thioro gi ñun ñëpp a ngi koy wàcc ñu ngi ci woo soppe yëpp ak xarit yëpp ak fu ngeen mënti nekk bu ko defee le 29 janvier ñu joxante rendez-vous ca fi nga xamante ni moo di euh, Diourbel di ndokkeel soxna may laat moom sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhla nijaayu maam Diarra ak Ndey buso doom ju doon baayam di ndokkeel itam euh, njabootu sëñ Abdou Karim Mbàkke yëpp fàttewuñu itam suñu xalifa euh, di euh, sëriñ Abo Baraka yàlla na fi yàgg te ànd ak ko kuwér moo fi teewal baayam ba sëriñ Fàllu foo ko baayam tegoon ba tey jógu fa ñu ngi ndokkeel Touba gépp ak képp koo xam ne rek yaa ngi ñu fay seetaan ku lim jum waaye ñu ngi taataan tey xaar seeni ñaan daañu dellu si waat man ak Oustaz Modou Fall incha allah ajjuma lu ko mooy midi plus bi dina dellu si bu soobee yàlla lundi 11h45 gërëm euh, Pape Samba mi ko réaliser euh, semaine bi yëpp euh, Alaaji Vieux Diouf mi koy réalisé àjjuma itam ñu ngi koy gërëm bu baax fàttewuñu toog mu Serigne Fallou passe partout bu RFM moom itam mu ngi liggéey liggéey bu am solo ci midi plus bi ñu ngi ko ciy gërëm gërëm tamit Adja Guèye Fadel ak service digital bu télévision Futur Média la grande réalisatrice Fatima Diallo moom it c'est ma petite sœur mu ngi ci équipe bi gërëm tamit ñoom mami ñoom maman Henriette équipe yi maquillé ci ginnaaw ñoom it bég nañu lool ci seen taxawaay ci midi bi bi gërëm itam ba Ndour euh, mi nga xamee ni euh, moo koy produire bis bu jot euh, ñu gërëm leen sant leen ñaanal leen week-end bu neex ci television Futur Média di nga dem week-end xanaa ay saleek yooyu dara nekku ci. waaw Pape yenn saa ma ma ma. gis naa la ci piscine waaw yenn saa yi ma laal ma laal Ngaparu. Mhm. yenn saa yi ma laal Mbour. mais yéen ustaas yi bu ngeen di dugg piscine da ngeen di sol maillot de bain wala jàllaa bi ngeen di duggee ci piscine bi ça aussi c'est bon à savoir. Pape adduna bii daal ku fi nekk. waaw looy duggee piscine oustaz wala yow doo dugg piscine. demi saison. <laughs> arwaar. au